Alizé. i daa am doole de. doole cum. Oh. <laughs> mais jàmm jàmm tey Ablaye Diop li mu def nii avant tout balaa ñoo ñëw si jël bi nga jël nag beeg préparation beeg ndax doon nañ gis video yi Mansour Seck chaque jour mu estati ñuy gis vidéo yi mais tey Ablaye Diop li mu def nii sa diggante ak bato ngeen bëre ba bàyyi bëre tey mu ñëw tegal leen ay nag xam nga boole leen combat ngeen ñëw tey def ambiance tey lan nga ñu mën a wax. non vraiment euh, lii dama ci kontaan trop. te di gërëm Ablaye. di ko ñaanal bu fat et lii vraiment man dama ci kontaan parce que man. toujours maa ngi maa ngi si espoir. mais xam nga rek euh, nu mu fa demee la moo tax. mënuñu dugg ci biir làmb ji. xam nga arène dañoo déglu ba sonn. dañoo déglu ba sonn mais Issa Pouye ngir yàlla na ñëw ñu bëre. Issa Pouye demandé naa ko ay maintes fois. sa am na ñëw ñu bëre ñun ñoo mën a mayante xaalis suñu biir mm-hmm. waaw dëgg mm-hmm. lancé naa message bu sonn mm-hmm. message bi day jàll ndax nee naa la Mansour Seck a ngi nii doomu ndeyu ménagère yi borom yaraax waaw loolu da nga see war a dox wax a makan wax ak gars yi ñu dox yi waaw am déet waay exemple bu dawul rek combat bi day taxaw combat bi day taxaw ak kii sa waay Amadou Amadou Ba Amadou Ba ñu taxawal combat bi ndax yoon la bu dee mobilisation ngeen bëgg waa Palmarin dafa war am combat combat. parce que kay bu amul combat du duggaat si du simple bi. Ah, waaw kay noonu la demee mais Thiam bu ñu ci loolu sa digganteeg bato bato ñëwul ñu ni dafa blessé ñu jox la ndam ni lan ngay wax. dafa daw dafa daw amul rafetal dafa daw. <laughs> daa ah. wax loolu du sama wax <laughs> loo si wax si loolu. nga baax day ah. sama doole ji bëri na. Oh, am doole te man dama defe ne TikTok bi moo déclassé affaire yi. non Alizé Alizé am na adversaire bu mu war a bëreel arène. Issa Pouye lay laaj. Issa Pouye lay laaj. yooyu lay laaj. Eh, waxal si wax. yaa ko waxoon de. Issa Pouye wala garab dama dama la ne. dama la ne Issa Pouye na ñëw ñu bëre. di nuyu waale waa waa Palmarin au passage. Mhm. Euh, suñu maire Mame Singhi Sarr. Mhm. ak waa Palmarin ñëpp. Mhm. Palmarin Ngunu Ngeej. Jaxanoor ba Jifir. maa ngi gërëm ñëpp di leen di sant. Karim Sène. maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax. mais ba Zilo. est-ce que Camp euh, Alizé suqaliku waalewul si combat bi ndax ñu doon sant bari nañ de. chaque jour mu ngi contact chaque jour mu ngi def open press na. open press bu dul jeex na. mais noonu la noonu la dañuy sant yàlla bu baax parce que man dama ne nitu nit ñi laa. dëgg it ndeysaan euh, du ma tagg sama bopp. Mhm. mais man sama xol bi dafa rafet. ndeysaan te yàlla rek tax. Mhm. li ma am nii ci ma. parce que mbeur bu nek say bu ma la gisse nga joy rek day am lu gën ci man te dama am yërmande tey woné nako ko mais tey jii nga juk tamit say rek yépp top la ah lu si mel ni la ngi taxaw duwul moteur ñëw top ci la ba mujjee jël lamb ji ah tay Ahmed Seck le grand ci kamay ah, de retour lolu ma ci tontu ah, ah ko xamul ni ngui koy def hmm, nam la defata la defata ndaysan Alizé mo sulu lepp bir palmaré dëgg la wala bu joyé ñu jooy bu reetaanee ñu reetaan ndeysaan bilaay di sant bësam kon bësam sunu bës la dëgg buñ taxawul ay saaga la ñu war a yeewee suba dëgg la bilaay walaay dëgg kii amul lu mu ñu jaral dëgg parce que ku ci am bës taxaw na la fi mu la war a taxawee defal na la li mu la war a defal dëgg bilaay bàyyi ay soxlaam ngir ñun ñi nga xamante ne moo ñu mag fukki junni yoon mhm. def ñu moroom mhm. te loolu yëpp mënoon na ko see ñàkk a fekk dëgg mais xam nga ab xol bu rafet rek mhm. ak baaxaayam ak bëgg li mu doon séeréer bëre simple séeréer moo ko moom te moom jaar na ci def na ci lu ne mhm. kon tey jii bu demee ba bàyyi bëre lii di ko ci fekk xam nga mhm. bëgg-bëgg bi fi ne da ko liggéey mais ba tey ba buñ paree si xale yi Alizé est-ce que du ma la wutalaat combat yow ak buubu joom ngir yàlla yow buubu joom lañuy soxla ak buubu joom moom lañ soxla buubu moom ak hmm. Alizé de moom ak Babacar la ñuy boole moom Babacar usine doole Babacar usine doole eh ñeme na buubu joom won na eh buubu joom eh won layta sadanga danga Babacar daf yanoom bagage doole soom nag yaa ngi noonu Palmarin tout droit Nabou Alizé ak Nabou Double mais Double laa la xatu de Ameth Seck da nga woon ak TV TV ñu war a wax la grand si Kambay mais Ameth Seck nga topp Alizé si poussière raw gàddu tànk bopp waa loolu ba mu bàyyi bëre tey nga gungewaat ko tey looy wax. waaw ànd bu yàgg la. Mhm. Alizé yaakaar naa ne ku ko xam mën nga ko xamee. fekk aussi suñu wërsëg dañoo ànd. Mhm. franchement lii bi mu amee man la njëkk a woo wax ma ma loolu lépp lu mu mën a jàpp lu dama koy bàyyi ñu ñëw teew ko ñëw suub aussi eh, ñëw bëree yàlla bu ñu mayee ndam ñu yóbbu lu ñu moom mais Alizé moom kenn la ci man kenn la ci man franchement parler mais seen waajtaay ak seen mafia ak seen délégation state yi daw est-ce que taxul sa waay daw ah bon xaw ma de li ko dawloo moom sincèrement parler xamuñu lan la mais tey grand Ameth yow sa xel ci lan la dem boo xamoon Alizé démb démb ak tey ak tey ngeen dugg si làmb ji Alizé yëngal dëgg neex yëngal làmb ji suñu xel dafa dellusiwaat si làmb ji ñun dañoo bëggoon tey si daal mu mu bindu si poids yi bëre woon bu boy ne fu mu toll nii dañoo teel a bàyyi mais bokk ñan si làmb ji ba léegi loolu mooy suñu problème waa Palmarin ñoom dañuy gaaw a bàyyi làmb ji fekk ñoom ñu ngi bëgg ñu ngi am part si làmb ji ba léegi mais dëgg neex yàlla kontaan nañ ci waa bu baax a a baax kontaan ci sum production ak euh, staffam yéen aussi di leen jaajëfal bu baax a baax Jiro sama booy mm-hmm. sama partenaire mhm. eh, Big Mo mhm. siar nañ leen bu baaxa baax yeneen TV TV ñew leen ki deug neex yalla dañoo bokk ben association ki ki sama papa la ñewal ni dañoo bokk ben association ki sama papa la mais taxawal père dama lay wax dara Amet yeena bokk association muy ñom ñal mais sama papa la ñu bokk mbuur mhm. sama ñëk dem somon dama dem ci lamb ji ma ci ci coroxaan gu miti mu bayyi lepp lu muy def yab ma ci motoom yob ma ba sunu kër yëkkati xaalis bu bari jox ma boole kaag di ma moccal wut ndoxam xam di ma lijjanti kon ki dama koy gëj gis lool jékki-jékki woo ko ci lo ne xam nga mom tamit non day doxalee ak man mu nekk goor gu baax muy père Mamadi ñu bokk mbuur xawma ni won sax sum la dëkk wax mako ko ni mo pourtant man ak ablay Diop sorianto wuñ mu nekk nit ku baax ngeen bokk association ñom ñal ña fa nekk ñep ñom père Madou Mbégaan nekk nit ñu baax mais tay nga fekk ko dëkkam mu nekk sa way nekk sa grand nekk sa kilifa lan nga ñuy wax am contenté bu réré ci mom gis na taxaway bi depuis bi nga xamante ñoom ñaal ba légui dafa jappé jàppee doom dëgg borom baax la dañuy waxtaan bu toogee doo xam ne si sax euh, ay morom lañ mm-hmm. kii ku baax la ku ñàkk ki ñaan la dëgg daf may nemmeeku à chaque fois bu ñu gisee aussi dëgg naax yàlla dañuy toog yaatal mu fekk si ko fii si dëkkam aussi mu yaatal ma mm-hmm. bu sañoon tey jii du ma dal fenn pour gërëm mm-hmm. loolu xam naa ko bu baax a baax a baax mais xëy na xat-xat la ak ñi ñëwee moo tax dëgg maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaan yàlla yàlla taxawu ko ba fa mu bëgg a yegg rek yàlla yeggloo ko amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf mon père kontaan jërëjëf